ndax jëfi jaam ñi waxtu woo ko tafee ci suñ boroom ci bind akuk amal nga jël jëfi jaam ñi ci fàggu taf ko ci jaam ñi suñ boroom dana la fay ci topp gi di fay beneen jaam ci topp gi di ko mbugal ci moy gi waxtu woo jàppee ni sa pas-pas yaa ngi yore pas-pasu ahlu sunnati waxtu woo xamee ni bi nag kon jaam bi aju na ci menn mbir ci loo xam ne al iqtidaarul ilaahi moo koy amal loolu la ñuy tuddee al kasb muy ngirum ahlu sunnati kon kàttanug jaam bi ci waxtu wu muy jëf jëf ju mën a doon foofu la ñuy ne jaam bi moo jëf jëf sàngam waaye kenn du ko considéré bi jaam bi daataan tàmbalike tàmbali appliqué jëf ji la ko jiitu da koy bàyyi ci dogalu suñ borom lu waral sax benn suuf yi dem na ne su doonoon aadama suñ borom dugal ma aljana tere ma garab ga ma lekk ca ñu ne ko lu tax mu ne suñ borom moo tere garab gi aadama waaye moo ko lekk loo garab gi yow mi sa dégg soriwul nag na nga moytu diggante yooyu bu baax bul ko layale sa bopp mukk ci li ngay jëf ñu ne ko lu tax mu ne lekku aadama ci garab gi moo waral wàcc ci kaw suuf wàcc ci kaw suuf moo waral muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñ bu aadama lekkutoon ci garab ga ñëw fii du am te ngëneelal muhammad sallallahu alayhi wa sallam du feeñ te lépp luy feeñal ngëneelal muhammad sallallahu alayhi wa sallam jar naa def mbir mu nekk ak déggam li kulli shay'in rijalun wa xaasa kon ki nga xam ne dafa askanale coobare li coobare ak fàggu lépp mu askanale ko boppam kooku xadar yi la génn na ki nga xam ne dafa dàq ñaari yépp ne coobare laalul jaam bi fàggu laalul jaam bi kooku jabri la kooku it ba sori na kon ki nga xam ne dafa askanale coobare ci suñ borom jël pàggute bi askanale ku ci jaam bi kooku sunni yu mi ngi noonu suufi rachid mi ngi noonu كلام طويل من فوفو كون سيني تابيتي موضوع بموي دور التصوف الاسلامي في الحياه المعاصره سيني دوندوغو كونتامبران بي بان رول لا تي تصوف دي جوي فكان نيميكو لين ريك تي مودياندلو سيكل بي نيو ген يين نيب دا نين غيس ني موندو بي دا بيتر نيكو يور بنين فيغير يور بنين كانام carte géographique bu àdduna bi sax boo ko seetloo mën nga ne dafa sensé lu ñuy tuddee an nizaamul aalami jadid dal di juddu système bu bees tàq wàcc ci kaw suuf di organiser àdduna bi muy lan li ñuy wax les deux poids deux mesures alkaylu bi mikk yàlla ni wa nazar bi minzaaray ni jamono boo xam ne dañoo jël maslaha lu arrangé nit ki rek moo jiitu maandu amatul maandu moom ginnaaw lay topp ñu jël njariñ jiital ko dëgg féete ko ginnaaw bu fekkee jël nañ misaal ci loolu dana ëpp ñu mën koo takk benn ñu tàmbalee ci xool li jullit yi jànkoonteel fan yii nga toll xoolal li jullit yi jànkoonteel ci xitaawu Gaza da toog ba yàgg nga ne est-ce que man ay nit laa nekkal ci kaw suuf jamono bi ñu tel nit a ne ci kaw suuf wala rab moo ne ci kaw suuf ñu ne Nations Unies am na réew mi nekk ci membre réew mi nekk ci membre ñu seetaan réew mi ay xale yor ay xeer ak yet ak luy nuroo ki misil tekkiwul dara ñu xool ku yor armée bi ëpp doole ci àddina bi yor ngànnaay yi gën a sophistiqué sophistiqué ay mazabih di massacrer ay xale ki jigéen junni ak ñaar téeméer yu tegal adduna bi croiser les bras wote ay résolution kooku bañ koo appliquer ñu toog di seetaan ñu naan condamné nañ ko condamné nañ ko yem ci wax loolu ci ngay tàmbali nga laaj man fu ma féete ci diine ak wet gi ma féete ban rôle la walla joué ci ci lii di xew nag ci kaw suuf li jullit yi jànkonteel foofu ci fitaawu Gaza nga xol lañuy jankontel ci Afghanistan xol lañuy jankontel ci Kashmir nga xol ay mazabih ay fazaa'i yi xewon bu yagul ci Bosnie Herzégovine xol lay xew ci rewum end xol ci dëkk ba wax Babari jumaa jëfa jullit yi tawax mo am juróom ñaar téeméeri at indus yi ñëw na seen yàlla ñuy wax raam moo fa nekkon toj ko tasaare ko ba yenu xeer ya jullit yi ñëw di révolté ñu rey ci ñoom lu jege juróom-ñaar téeméer am na sax jullit yu bari yu jégul loolu sax nag far mën naa am sax réew ya ñu nekk di wax ne réew yu démocrate lañ ah réewu lañ nekk waaye internet nañ gone jigéen gi bu mu jël voile dugal ko ci biir école bi réew mu démocrate lañ nekk waaye sax ci réewum turc waji bëgg a falu président duñ ko fal ndax jabaram fay def hijab te duñ nangu suñu pale bi hijab duggu fi te jàkka ya fess del ñuy kabar allahu akbar allahu akbar lol nak motax jihad jihaad ci boppam nek farida islamiyya ngir taxaw nek ben sappé ci kanam tuti dinañ gëna a ñëw ci problème jihad joju deggin yi nit ñi baax ñi kenn ku nekk ni nga ko dégg ak yenn ci gaa yi kenn ku nekk compréhension bi nga bëgg a jël ak kilifa diina gën ko bëgg a wér insha allahu taala jullit yi war a taxaw def benn sàppe ci kanam nouvel système mondial bu dëng bii nga xam ne mooy nattub àdduna bépp monde islamique bi ci beneen côté ñu nattoo leen li ñuy tuddee usuliya muy tur wuñu tudd is ismun bila musamma tur wo xamne bo deme do fa fek deug deug ku tudd tur wo xamne amul borom lan moy usuliya sëriñ bi fi joge léegi fek nañ mu am lum ci xawa tusi yow julit nga man julit la waye fi yaa def nangam wala ngay bayyi nangam donte wax la ilaha illa muhammadur rasulullah yefer nga sa deret dagan natur, sa soxna dagan natas. sa sa say doom dagat naa siif yóbbu am na ñu neen ay jullit lañ ne yow ngeen bokk di jublu penku te lii mooy pas seen pas-pas ci yow su fekkoon ne sax usuliye boobu ñuy woote dañoo jël seen gannaaw wéer ko ci gannaawu jullit yi jàkkaarloog yéefar yi seen bali fetal ya ak seen bomb ya di dal foofa